وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور kon nañu wóor ne nañ am ni ko Sëriñ Tuubaa bëgg ne nag bu ab boo ci duggoon kenn mënta mu am waaye li Sëriñ Tuubaa bëgg ci dëkk bi kenn mënta mu am loolu la gisee ñu ko dal Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne tubaab yi de damay njëkkante ñoom xol xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw boo xam ne njëkk nañ ko ci moom ñàkk naa ko bu faw moo tax mu indi masruuxul kaw suuf du ndax rek Tuubaa bi li ñuy indi mooy li ñuy wax fexe ba utiliser ay ay ay ay ay tubaab gëm loo leen seen maswax yëpp mooy wedd yàlla ak liberté bu ëpp ak doomu aadama joxoon teguñ ko ci diine ak noot nit ñi fexe ba jëfandikoo néew doole bi Sëriñ Tuubaa ca wet ga li ñuy wax ba déet lañu andil ba déet bu ngeen demee ci waaw yéen a koy tudde alternative ba déet lañu andil mooy asiraatal mustaqim ak njub nangoo liggéey waraaxee suñ kulli xalqin xaq man xalaqa xaq yi ngeen di wax sax mbindeef ma gën a wolof Sëriñ Tuubaa da koy doo àq léegi masuuxa dimbalante moo tax murid bi duñ tumuraange duñ jaaxle lépp lu yëkkate dañ ko àggale na na leen bis bi la li ci kon bis bi bisu ndam la bisu puukare la danaa ko indi fiit la bi ci rek li ma sëriñ bi jëloon wax ne naa ko fàttali nit ñi mooy fàttaliku li ñu fi indi te bàyyi ñu fi na ko sëriñ Saliou Mbacké daa waxee mooy jaamu yàlla suñu borom ndax suñu borom kat dañ bindee doomu aadama yépp a tax ñu bind ko alxilaafatu wal ibaadatu wal imaara alxilaafatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati innii jaa'ilun fil ardi xaliifatan mooy alxilaafa al-ibaadatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun al-ibaadatu nag moo andi lépp ci kaw suuf mooy huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiiha Sëriñ Tuubaa nag waxoon na Sëriñ Mbàkke Buso ne ko yow Mbàkke Buso yaa ngi nii li la sa borom digal lii di sa kanam li la sa borom tere lii di sa ginnaaw mboolem li ñuy bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkk di te loolu mënoo ko ñàkk loolaa ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ñu ngi sa ñu ngi sa kanam waxtu woon nag ñàkk jëm ci dara sa borom digal mbooleem liggéey bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkk bu dul bëccëg loola nee na mutuma geesoo ñoo bokk fi mu ne mbooleem li ngay bañ nag te di ko ragal te di ko wattan guddi bëccëg lool ne la mutuma geesoo bokkuñ fi mu ne waxtu woon nag ñàkk la jëm ci dara sa borom tere mbooleem liggéey bëgg te di ko wut te di ko fexe te di ko sàkku di bëccëg loola nga ne mosumaa joso bokkul ci ñoom mboolem li bañ te di ko ragal te di ko wattandu guddi bëccëg lool na la mosumaa ñoo bokk fu ñu masta wax ni yàlla suñu borom dafa bind ay ndigalam lënkale ko ak ndëgam bind ay teram lënkale ko ak meram jël mbootam def ko ci jaamu bu ko suuf ba tax na fu ngeen fi fu ngeen fi gisee ko waaye feral leen ko te bu leen ko tànni jëm Sëriñ Tuubaa daana wax ne Sëriñ Tuubaa daana wax ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee udd fan ne ko doomam fi bàyyi ak keneen ne ko ma teeru leen bari leen dee leen mooy safaan ba ndax bu jugee gàtt fan ne ko dooma fi bàyyi sawara ne ko matière leen bëri leen mooy ak tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye koy fayu du yeneen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer yàlla réer seytaane lay woo ma bi dañ yeneen bakkan bi ndax ku waxe bakkan bi tontoola bakkan ngeen féewoo te féewoo ne xaj na ca yeneen mooy fital te jaar ci mbir ma ndax kuy seetal ku nekk fooy si njëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na tey moom ñoo sàkk bi sax ministère mu ne waaye suñ wax ko waxoon lépp mooy bi biir seer damay fàtte màggal bi ñu ne lépp aussi suñu tubaab yi yëkkati ma ko jëriñ ma di gën si waat waaye sëriñ bi nee na mi sant ñëpp ñu sant ñu bokkal suñu tubaab ñu sant bokk yëpp waaye di sant taalibe bi suñu sopp gi ñu sopp Sëriñ Tuubaa dem nañ ci ba Sëriñ Tuubaa dana leen seen seen jëm dana leen seen alal dana leen seen lépp sopp boobu ñu ko sopp rek rawatina ndaw ñi bëgg nañ ko sopp nañ ko sopp koo xam ne àgg na ci bëggatuñ dara lu ne Sëriñ Tuubaa loola nag nañ xam ne Sëriñ Tuubaa la mu liggéey doon suñu borom nen la nen képp la ci fay ko suñu borom fay ci diggante moo tax mu wax nañ allahu allahu yansur yansurni wal xalqu tatbauni il barri wal bahri idanahum bi asarani liggéey bii nag Sëriñ Tuubaa ñu ngi koy liggéey te ànd ko kenn te kenn dimbalewu ko ci kenn jàppalewu ko ci ba ko Sëriñ Gaawaan fekkee te liggéey fa ndax moom dafa bëggoon sëriñ ba mu coom sago ma sëgg si ñorom Sëriñ Tuubaa mu accès sëriñ bi nag Cheikh de na nga daal dellu ndax su yërmande ak tuur ñii ma fi dekk ngir ñu gis suñ bët loo dagana ba mu dikkee da ko yëre amayoon nañ ko ko te la ci gën a yéeme ñii la mu fay nekk lépp dafa wax ne yeddi min wax min karim naati an samadin laa li darahimi taati min soretin mës a nekk seen juróomi dërëm wala seen dërëm ñu ko daa jox ba dem fa bàyyi lépp mu jaayal na ko liggéeyal ko xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba liggéey bépp sotti muy ak fulkul maxtoon moo andi ko ne Serigne Thiel baa ngoogu waaye ñëpp ko bokk moo dem ku di julli rek Serigne Touba tàbbal na la ci moom di aw sidi lesi uridu wan faxi di yal wara yaa muxliyan an lu faxi jaalu juuxi ila qawmi saadatana والفتنا يوم جمع خلق ميراثا وبشر ذوي الإسلام طرا بأوبة وبشر ذوي الإسلام بعاجل الوقوف waaye la ci gën a yéeme nag loolu képp ku muy ñaanal la ñu demee xat-xat danaan bi laa tasabu bi nit ñi bu ma soxla lu mu ko soxla dellu Sénégal kon Serigne Touba ba Cheikh Ibrahima Fati seere woon nee na may gi li muy li muy rëy rëy bu dëppwutoon jikko yi ñett ñi di ñëw bokki boppam bi buur yi ak borom xam-xam bi waaye Sëriñ Tuubaa may gi dafa dëppoo jikko ji sant yàlla xam ne Sëriñ Tuubaa suñu borom ay na ko ay bi ba adduna tukki saa su day sotti ko te kenn dóoru ci dara moo tax lii xew bu yàggul muy mbas mi ba amee ci njaareem muy pest ba te sëriñ bay jaxate wax ci kàddoom yooyu tubaab ci sëriñ bi ne ko yow de min la xamee wóor nañu boo ci boo ci ñaanee mu mu tàggoo mbas mi dem léegi sëriñ bi na ko yàlla suñu borom ñu ko firni waxtu woo lan ñeneen dana jeexal dana jeex bis tubaab yi xëy ànd ak suñu bàll coono ne ko dañoo bëgg gën a leeral suñ bi wéer bi di suñ tolloo suñu accès fekk suñ bi jël di yi tubaab bi tàmbali di leeral di wax wéer bi di dañuy fàtte ñu mu rawe tubaab bi ne ko damaa yaakaar ne da nga ko war a gën a leeral xëy na dafa dégg bu baax li ngay wax sëriñ bi ne ko qul inna al mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada ba bis sëriñ bi xëy ca njëriñ xam nga ne suñu doon de xamal na ma ne jàngoor bi fi ëllëgee jeexal na ko moo tax la suñu kilifa bu baax la sëriñ Saliou Mbacke daa wax ne yaakaar bi bas miin yoon ko suñu daa Cheikh Mouhamadou Mountakha woote bu yàggul ci weeru ut wii nawet bi ñëpp jaaxle na ndox moom xam xam ngeen ne kenn mënu ko lijjanti ñeent bi di jaaxal na nit ñi ba kenn xamul ci foo jëm sëriñ bi ne kat li ñu ci war mooy toox lu tuub dellu ci suñu borom def def tawassul ci njàngum alxuraan ak xasida yi ba mu ko defee booba tolloo na ci junni kaa par bis yu tegal ay bi wax na ne ci juróom nga toll kon loolu nag jàpp naa ne ku mu dellu sam xel ku mu dellu sam xel mbirum Sëñ Tuubaa loolu ku mu dellu sam xel yaakaar naa mënatoo gis ku dal sam xel boobaa nag su mu mën bukk mun bu mun soo laayal joxam da lay doon kon ñu ngi jaale bu baax ñi nga xam ne wàcc na bi guddi ndax accident yi metti na waaye nag nañ xam ne ak dund lu mu yàgg yàgg boo dugal junni at boo xëyee day jeex afa in mitta fa humul xaaliduun ñoo fi des day fees kenn xawul da nga fekk ëllëgam léegi kon ku jur nag amoo doog am ko seet ngir màggal si si màggal si biir sëñ Tuubaa yi moom la joon na nga sa tuyaaba àgg na te mu rëy bi kat si bi ko sëriñ bi wootee. seen bakkan ak seen lépp lañ jël tey na ko ci Sëñ xam ne lu leen ci mën a fekkee na leen ko waaye dara lu leen ci fekk lu jox kon nag fi ma koy jeexale mooy ñu xam ne ramziyatu salaali wal makaari mooy màggalu Tuubaa mooy suñ bis dëkku Tuubaa moom la ñu sama kilifa bu mag bu baax moom ko Sëriñ Tuubaa nag dafa nekk ca njaareem boo woon bokk na ci di woote màggal bi suñ bay saar xam ngeen fa mu dëkkoon ci njaareem la ànd ak yëngu bu rëy rëy fekk sëriñ bi di wax ba mujj kenn dëggatu ñëpp jaaxle amule juróoma nag naan moom bi da koy sëriñ may la ëpp di ko wax ci seenu xam sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko bu accès wax li mu ci dund ñu agsee sëriñ bi na ko Babacar am na li nga doon def loo jiw mu ne ko danga bëri bëri ba dàq xare ba daan te bakku sama loolu mënu ma ko woon moo tax may bakku sama dëkk ba ñu wax Tuubaa ak sama jumaa ja ma fa def mooy sama bakk kon kon nañ xam ne dëkk bii di Tuubaa ak màggal Tuubaa mooy bàkku Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nag li mu wax ne yàlla suñu borom moo ko xamal lépp am na ku ñëw yëkkati ak yu bari jox ko sëriñ bi na ko tegal noonu ndax loolu alxuraan daw ko téye ci loxoom Cheikh Abdou Zahar mas na ko nekk liggéey waa ji xalaat seen xaram ne xanaa sama addiya yi ni mu bare sëriñ bi da ko ngi da ko génn sëriñ bi gestu wëlbatiku na ko alam ya'lam bi anna Allaha yara xanaa xamoon yàlla gis na ko ma tàmbalee xalaat seen xelam ne xanaa lii di kenn mos koo gis kuy tontum xel ñu ko waaye wëlbati ko ne ko allah yaxlu man xalaq mu daal daw dugg kon suñ tubaab da daal tonk am xel ba mu bindee ne laxayril taxa bil muntaxa kulli si saxaar wa yanxu bihi naxyu saidin wa zu duxaan képp ko nar a texee rek suñu borom dana la gën jéem a dem nga dem fenn fu dul man képp koo xam ne yàlla suñu doom namm na dara ceew ci texe nag daa daa teg ci soxal nga sopp ba ci moo tax ba mbindaate ne alaahi bi fadlillahi fii lawhihi jaraat bi xayrin nihaayim doonu masri wala xawfi naar bi na ko seex li nga wax rek na loolu de falaahi bi fadlillahi ne ko xanaa dangaa fàtte ati wax incha allah suñu la ko xëcc allah kon loolu la gërëm suñu Tuubaa kon nañu santaat yàlla bu baax gërëmaat ko ci taw feex jëm ñu defal dañu topp ci ginnaaw suñu Tuubaa nga xam ne képp koo xam ne bokk na ci juróom njabootam xam ne woon na ne yow ma alal si jot bëgg njëlaat la tànn képp koo xam ne tànn tànn tànnaale woon naa la tey kenn mun laa tey yow képp ku ma ci boolewutoon tam kenn mun laa tax a jóg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Mbacke leer leer na nañu dagg nañu waaye Cheikh Sidi Makhtar Ka nee naa la wax ni France sax daawuñu ñëw waaye ren ambassadeur bi ñëw na te bi mu ñëwee daf la li digal ma tere ma kon Mbacke ñëpp ñëw na kon fekkee nit ñi ne ko ñëwoon nañu toog fulupee mu ànd ak moom ak gan yi dem ca moom kon nag ne ñëpp tàllal bakkee sëriñ bi ñaan fu ñu nuppee sëñ Cheikh sëñ Cheikh mu sëñ Max sëñ bi ne bismillah amiin Mbakke leer na nañ léegi nag day looy yàq kooku ne amiin Mbacke gay gay dina jëm xaaw amiin Mbacke nit may ko mën la ay kàddoom tontu ko itam tontu loolu kon ñëpp fi mu nekk nii ñu ngi wommatu nag war dem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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور